asalaamaaleykum mbokk yi tey la altine fukki fan ci rajab muy weeru ndeyu koor di juróom-ñaareelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñeent fukki fan bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci altine ji rafet na li ñu ci gën a mooy ku ca daloo wala ku ca watu altine ju nekk sunna la ci ku ko man mu woor ko ñaanu bis bi yow sama boroom yàlla na nga ma jéggal yàlla na nga ma baal yow yaay baalekat bi tey yërëmekat bi rabbi xfir lii wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim rabbi xfir lii wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim xadiisu bis bi bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bokkul ci noonu koo xam ne du yërëm sunuy ndaw te du xam àqay sunuy mag xadiis bi abu daawud génnee na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa minna man lam yarham daghirana wa yarif xaqa kabirana bi abu daawud waxtu julli yi suba waxtoom daa tàbbi 6 benn waxtu yu tegal fukki simili ak juróom ñett tisbaar benn waxtu wu tegal ñeent fukki ak ñeent takkusaan 16h44 ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak ñeent timis 19h03 juróom-ñaari waxtu yu tegal ñetti simili gee 20h14 juróom-ñetti waxtu yu tegal fukki simili ak ñeent loolu mooy waxtu julli ci Touba ak li ko wër bu fekkee ne ko Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre juróom-ñaari kilomètre dina yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saalum téeméeri kilomètre juróom-ñaari waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñett di so dix-huit heures cinquante-neuf juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom-ñeent yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin